ah mu ne jawar ah léegi léegi mais man dama ko soon jotu ma ko sa sa téléphone yi nu mu demee pourtant man yi woo naa la ma la de man nga doon wax ah wallaahi ah ma nga fële. numéro baa nga ca bureau ba. mooy 101 bi. waaw ma nga ci bureau bi bii laa ah, yor. ah 900 nga yor. waaw 900 laa yor. wax dëgg de. ah loolu saa bi waaw. tuub rek de. tuub ah. démb damaa liggéey woon rek ñëw guddee. Ah. tuub rek téléphone daa nekkoon silencieux. daa nekkoon sama bopp sama ko defoon mode avion. ah ana bi nga ma jox. lii loolu. non am maa ngi liggéeyoon démb moo ma yónni yooyu ngay wax alaaji alaaji baal yooyu baal yooyu. <laughs> noo def ëmb. dégg muy laaj ay numéro personnel. alaaji alaaji kenn du ko topp ba liggéey woon nag guddee ñëw ma sonn ma def téléphone mode avion wallaahi loolu la ba pare téléphone bi ma daan yee ma nga bureau eh. démb saak bu bureau laa ko bàyyi eh. lii laa xëy see téléphone waaw ah, léegi nuyoo ba pare parce que damaa présenté waa ji sa kii bi laa waa bëgg a teg booy élément bi wala yor nga élément. ban la. xam nga. mbaam mi kii nag teg nañ ko dem gis naa. mbaam mbaam mi mais dafa am keneen ku ci wax benn wax bu xorom. ah déggoo waa ji ñu wax wax bu xorom. kon xaaral ah bu kii ne woon lekk na mbaam ak ci. <laughs> kon xaaral nuyoo ko teg ko eh, gisoon naa ko dem ba rëcc na ma. ay aywa kon maa ngi lay nuyu alaaji di nuyu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke mm-hmm. ñaanal ko Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wàcc uh, màggalu Serigne Abdoul Ahad gi mm-hmm. incha allah mi ngi ñëw xam naa à partir de daa mm-hmm. daañu ci gën a ñëw wax gaa ñi bis beeg fan laak nu mu demee ñu ñaanal bu baax a baax sii Sidi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñaanal Serigne Xaalim Fall gërëm bu baax itamit uh, boutique la solution mi nga xam ne moo ñu gunge waaw comme damaa macha allah waaw. waaw mbaam yi nga ni kon démb après dafa am ay réaction non waaw waa ji xam nga réaction bi waa ji waaw man réaction bi laa déglu. mais avant réaction yi doo bàyyi ñu ñam tuuti ci kii bi ñu nga doog wala. kii ban ñëwal. waaw ma ma jox benn kii rek ñu doog a ñu ñu doog dem. Hmm. wala. ñëwal waaw. ay ja euh, dañu bëggoon waxtaanee rek euh, ginnaaw président euh, Bassirou Diomaye démb nag tukki na tukkeem bi nga xam ne fële ca Mauritanie. Mhm. Euh, demoon dafa ab nemmeeku foofu waaye nag ñu wax ni daal président Diomaye dafa jox ñi nga xam ne ñooy waa IGE ak Prodac ak Cour des comptes ñu publier rapport yi nga xam ni moo doore deux mille dix neuf ba deux mille vingt trois xam nga bu njëkk gars yi dañu wax naan nañu enquête nañu def lii. Mhm. mais bi yoon moom président bi dafa mel ni parewul pour couvrir kenn sax. donte ne mhm. sax mën naa yu fi mën naa laawaale ku ne ci wetam. ndax nee nañu publier te defe naa bu ñu publier moom sénégalais yëpp a dañoo sàcc alalu Sénégal. Mhm. waaw waaw son yu xam nga li njëkk mooy. Mhm. yoon woow moom mooy yoon. waaw maanaam moom la réew mi teg. ne nii la yëf yi war a doxee. Mhm. maanaam bu ñu joxee ay nit ba pare. dañoo teg ñeneen ñoo xamante ne bi ñooy contrôler nit ñooñu li nga xam ne moom la leen réew mi jox. exactement bu ñu contrôler ba pare. rapport yooyu tamit askan wi dañoo war a yëg yëf yi ni mu demee li doon yoon mooy doon ca teg sa coonc loolu mooy nekkoon li nga xam ni moo dut yoon xam nga nag li doy waar Sénégal moom ngay gis loo xamante ni mhm. njiitu réew mi war a mën nit ñi exemple moo ne am na yoo xam ne maa ci teg sama coonc xam nga loolu te ba noppi njiitu réew mi moom Euh, sunu borom daf koo kii parce que daf ne dafa am yoo xamante ni bi bu naree yëngal réew mi mhm. man président laa damay teg sama jooñ ñu gisoon dossier bi nga xam ne moo doon yëngal réew mi waaw tegu ci jooñ tegu ci jooñ waa dëgg la kon mu mel ni waaw yëngalul réew mi waaye day yëngal ay xaritam <laughs> moo taxoon mu teg ci cooncam waaye bi doon réew moom yi réew mi yitteelu ko mais li li mu mooy lu laal ay xaritam ak i mhm. jegeñaaleem ak i mhm. loolu la bañ lii nga xam ni moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tàmbalee tàmbalin bu rafet la waaw daal ne li ñu joxoon ñi ñu doon liggéeyal depuis nàngam ba nëga ni ñu joxoon ngir ñu saytu leen mm. lañu amee cay rapport yëpp depuis deux mille dix neuf ba nëga ni mm. ba deux mille vingt trois mm. nañu publier lépp askan wi xam yëf yi lan la ndax doon nañ dégg ñu ñu épinglé te dara leeragu ci loolu loolu rek mooy yoon loolu gis nga loolu ñu ko doon doxee nga xamante ne bii fu rapport yi génnee ñu publier ko def li ñu war a def mm-hmm. bu boobaa. waaw laaj rapport yi nag buy génn mën naa mel ni ba booyee génn prison de. waaw mais poulet poulet ji ah, ah, diw mi ci la. <laughs> waaw mais loolu baax na. Ah? bu boobaa loolu mooy defar am réew. réew looloo koy defar. Hmm. bu ñu nekkee ci am réew di ñaan yàlla réew mi. Hmm. ngir mu dox. Hmm. Euh, bànqaas yi ñu teg. ne leen doxal leen. dañ leen a war a bàyyi ñu doxal waaye bu dee dañuy doxal ba pare la ñuy doxal dootul am kii xam nga fi mu toll nii tey am na ñu bari dañ doon dem ba ne ay of nag ak kii amul njariñ si yaa ngi waaw xam nga lu tax mhm. parce que ka nga xam ni moo leen tab boon ah. euh, moo ca daan teg cooncam waaw maanaam dañ leen tab ba pare bàyyi wuñ leen ñu liggéey voilà mais bu ñu leen bàyyee tey ñu liggéey def li ñu war a def hmm. rapport yi génn hmm. le procureur jël ca la cay cëram hmm. yoon jël ca la cay cëram ñu def li nga xam ne moom la ñu war a def bu boobaa rek léegi nga dégg Sénégal euh, parce que sooy bu dañ laa war a fal ci bërëb ngay xalaat a sàcc vraiment waxuma la di sàcc de mais xalaat ko moo dut yoon waaw te lii sax yee ñi xam ne ñoom la ñu fal bis